ndeysaan grand combat baa ngi noonu ndeysaan Ama Events moo ñu fi woo mercredi le 23 février 2022 fii ci arène national ndeysaan grand combat bi ñaari mbër ci diggan ci digg géew bi ndeysaan Petit Kona bu baax ak Fadam Junior bu Mor Fadam ndeysaan Fadam Fadam Junior bu ñëwee ci Mor Fadam wàcc na ndeysaan ndeysaan grand combat noonu ndeysaan ma ne Fadam Junior bu nekkee gën Mor Fadam wàcc na. waaw Mor Fadam 2. Euh, bu nekk yëri Mor Fadam moom wàcc na. Fadam Junior non bokkut ak Fadam 2. Fadam Junior la. Fadam Junior. Fadam 2 Fadam mooy di di cortigué. ko. temps yi mooy décortiquer moo xew. Fadam 2 waaye waaye Fadam 2 kenn du moom moom it arbitre la ni ma ko waxee léegi mercredi 23 février ndeysaan Ama Events moo ñu fi woo ndeysaan grand combat bi dox ci diggante Petit Kona Bikini Kaay Baax ndeysaan ak Fadam Senior bu moot Fadam ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan Petit Kona moo nekk suñu suñu ndejoor ndeysaan Fadam Junior moo nekk suñu càmmeñ waaye Petit Kona mi dafa mel ni dafa sawara ah. Petit Kona gi xoolal ma lii xoolal ma lii ah? dugg na géej waaye daal fa ñaari mbër ba mu mujj géej waaye digg dem mbay simple mu dóor ko mu daanu ndeysaan dëgg waa Fadam bi baa nañ la nga daanu Fadam sa garde bi defar ko Fadam mi gardam bi wóolu moo ko de ah a ah, garde gi daal adugaa daa bese na moytu waaj dóor ko mu daanu de xoolal ma lii xoolal ma lii. xeexam bi. baaxul de. ah ah. doy na waar. rokas ba moytul ma xeex bu seet bi dama koo ragal bii. ah kon ah, xam nga rokas. laay laay dama koo ragal. da nga koo ragal. dama koo ragal ndeysaan. Babacar kenn du yow. eh dina ko ëñ. waaye lii dafa dafa yomb. ndeysaan petit Kona li nga bëgg a def dafa yomb waaye petit Kona mii. day dóor rek. ndeysaan petit Kona ak Fadam Junior. ndeysaan jàppante nanu jàppante nanu ah. mais dafa mel ni ki nga xam ne mooy Petit ko sàcc maas. Petit Conan dafa mel ni moo moo ko sàcc maas. moo gën a moo ñëwoon gannaaw. ngeen bokk ngeen bi. moo moo def vax noonu. Faram si ñëw nañ lool. moom la ñuy jàkkaar lool mu def ngeen lu weex li ah. waaye mu ngi liggéey ci suuf mu ngi liggéey yor di dem rek. waaw mu ngi liggéey ci suuf. génnaan na. ndeysaan xoolal ma arbitre yi. ña ngay daw rek di wër. dañuy daw di wër bëgg ñu dara rëcc leen daara ndeysaan su ma nee arbitre nag sama xel day dem ci Sitor arbitre arbitre bi àttan na leen. arbitre arbitre bi àttan na leen Fadam Junior a ngay dem ca Arlo ba cee Arlo Arlo de naa ne du fekk kenn de. waaw Arlo moom lu fekk ci kenn. yaa koy fekk yaa koy fekk. yaay def lu tax ñu yóbbu la fa. ndeysaan cey Babacar Babacar baa xam nga ni kenn du yow. kenn day Axmadu. ci biir réew kenn du Axmadu ci réew mi. waaye yow kenn du yow. non kenn du Axmadu. ndeysaan. Seydina ngi noonu. ci Seydina kenn du moom daal la jàmm. kenn du yow jàmm rek am solo koy rafet. yàlla na jàmm yàgg. ndeysaan sunu sunu liggéey. Ah, ah, xaarim. waaw liggéey jëmm ji taxaw. waaw. duma waxal nit lu ma xamul si doom aadama. dëgg la barki seexul xadim baax rek laa xam si moom. loolu dëgg jàpp ñaamuram. Uh-huh. liggéey bi fi da koy liggéey teg ko si yoon. kenn du ni liggéey ñëpp. kenn du ni ko moo kaay fii yaa wax li. dëgg la kaay yaa feddale yaa xewle ñii chaque jour mu ngi bay waaram ci làmb di liggéey liggéey bu rafet nag. ndeysaan xale bu kenn xamul. dëgg la lay génnee siiwal la. dëgg a di ko ñaanal ndeysaan abdou sifla waat yàlla sa jàmm yàgg. ndeysaan abdou sifla waat na ndeysaan ci diggante Kona Petit Kona moo nekk suñu càmmeñ waaye Fadam Senior moo nekk suñu ndejoor ngemboo ngem bu weex bi Petit Kona Petit koy buux ah Petit Kona buux nii. ay waay ay waay roxos mu ngi koy roxos li la la loolu bëgg a def la ilaha illallah eh Fadam Junior daan na ko eh Fadam Junior daan na ko eh sama xel dem na ci Fadam doo waay ay waay sama xel dem na ci Fadam doo waay eh eh ay waay Fadam Junior daan na ko waa kër Mor Fadam kontaan nañu ndeysaan dëggal ndeysaan nee na dana ko rey. ko dëkk bi. nga ni ko. génne ko dëkk bi. ndeysaan dëkk bi. génne ko dëkk bi. ndeysaan dëkk bi. ndeysaan waa kër Mor Fadam yaa ngi nii. génne ko dëkk bi. ndeysaan Fadam si ñoom li mu daan rëy na. bu ñëwee borom. Ah.